wa baadu maa ngi dellu sant yàlla cantu gu ànd ak ngir yàlla wa baadu maa ngi dellu sant yàlla cantu gu ànd ak jooy xol ngir yàlla waxal bu loola moo ma jooyloo Sëriñ Basiiru Mbàkke moom la doyloo waxal bu kaawu moom ma jooyloo sëriñ Basiiru Mbàkke moom laa doyloo Bamba ko dem mu doon bégu murid te mooy dono mooy njàqarey marid cey jile waay ñàkk ko doy na jaaxle am nga rama min xablu doy na baaxle waaye àddina bonam gi wóor na Mbàkke wóoraale gaaya askanoo ca kokki bis ba sëriñ Basiiru Mbàkke génnee Tuuba fekke sëriñ bu mag ba sañcoon Tuuba bis ba sëriñ Basiiru Mbàkke génnee Tuuba fekke sëriñ bu mag ba sancoon Tuuba bis sëriñ ba sancoon ba sëriñ Basiiru Mbàkke génne Tuuba sëriñ bu mag ba sancoon Tuuba Kajoor di jooy mbaa kon ñëpp daanu waalo di wal wali wal ñakaanu góor ak jigéen di yuuxi wer weri xoli jirim yak baayo yëpp war wari la dale bi Jurbel ba yegg Saalum ñëpp awe dem ku nekk fàtte baaxam la dale bi Jurbel ba yegg Saalum yëpp awe dem ku nekk fàtte baax wata yi dem na soox mel ni màggal jooyo badal kenn talatul kumandal sëriñ si ak donga yi ñëpp a booloo li war faraw datum ba maakoolu sëriñ si donga yi ñëpp a booloo di war fa ba maakoon bisab keroog jàqara dañ na naqar waam keroog ma ne fa misaal soo xalamee dem ak ak saaba yaak Cheikh Bamba duunallaay soo xalamee dem ak soo xalamee dem ak rasuulallaahi rasuulallaahi rasuulallaahi rasuulallaahi ak saaba yaat Cheikh Bamba duulallaahi xam ni la génne joojawaay fa tayba Tuuba moo génne Sëriñ Tuuba fa Jurbel bis ba du bàyyi Cheikh Basiru sax fa Tuuba du bàyyi Cheikh Basiru sax fa Tuuba naqaru dem gi nasaxal bisam ba bis ba rañaane daaru jëm dar mu yëpp bokk waaru bis ba sëriñ Tuuba rañaane daaru jëm dar mu yëpp bokk waaru abli safinatan bi kullil janna min daaratil minna ni yaasal minna abli safinatan bi kullil من دارة ممن يصل منا أبلي سفينة بكل الجنات من دارة ممن يصل منا